n'avoir pas publié de telles données relatives aux performances économiques du Sénégal. Nous n'avons pas publié ces résultats ou ce texte. Ils doivent provenir d'une tierce partie qui a essayé d'interpréter nos données. World Economic a démenti le président de la République, a démenti le ministre des Finances. lii c'est du fact fact-checking la boo xamante ni waa Africa Check ñoo ko def donc am seen classement World Economic ngeen dem ba une institution di weddi le président de di weddi ministère des Finances c'est une de publier de fausses données pour montrer que l'économie sénégalaise marche yéen a am problème avec World Economy arrêtez de dire li ngeen di wax kii c'est officiel li ma lay liiral nii et vous savez très bien que c'est officiel qu'est-ce que Macky Sall a produit. le Sénégal est la deuxième plus grande économie de la Ma... zone UEMOA après la Côte d'Ivoire. lii mën nga koo liir mën naa la jox nga liir. te xam na ni lii c'est officiel lii c'est officiel World Economic à demain bi économique ah, la jox la e Sénégal est une économie compétitive waxuñu ko man déglu ma j'ai lu le classement bi nga xam classement yi nga xam ni liir nañ ko sur la pauvreté ban classement la Sénégal yor sur la pauvreté nañ ko génne en mille xam nga toog ni le Sénégal données yi ngeen di jël en compte ça fait peur aux su ngeen nee tey le problème principal Macky Sall yokk na le budget de koo doubler mais la dette était de 3000 milliards en 2012 aujourd'hui la dette des administrations bu ñu nee état bi mais bu ñu boole de toutes les administrations boole ci Sénélec boole ci ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp la dette ñu ngi naan ay mil milliards. 11100 mille. non boobu 11000 c'est l'État. centrale non non non la dette globale bi dépassé na 11000 la dette globale mu ngi nekk ci 11136 quelque la dette a été multipliée plus que par 3 mais le budget a été multiplié par 2 ça quoi que vous avez financé toute l'économie sénégalaise à partir de la dette quand vous dites le TER quand vous dites le BRT ban xaalis la fu mu jóge quand vous parlez de Sénégal day am croissance 10 pour cent ñu ne lan moo indi ce ce ce ce rebond ñu ne l'argent du pétrole bu dugg see un gonflement artificiel du budget mais qu'est-ce que le Sénégal produit comme entreprise quel est le taux de chômage réel lu tax ma Marème fay sàll toog xale yi naan ko amuñu liggéey mu woo président Macky Sall naan ko président xale yi nee nañ amuñu liggéey seen ministre yi genre Pape Malick Ndour bi ñu leen falee gersuñu xale yi est-ce que vous avez entendu ce discours le la première dame qui accepte que les ministres dañoo war a gersu nit ñi pour ñu am liggéey là aussi il vient pour les pour les jeunes moom nee na càq-càq c'est excellent fexeel yow ba sa doom su màggee nga fexe mu dawali Jakarta aucun doomu ministre du dawal Jakarta li nga wax dafa ëpp. non mais c'est que. amoo droit non non non vous me laissez terminer man li nga wax daf maa metti yow sa doom du dawal Jakarta benn doomu Macky Sall du dawal Jakarta xam nga ni Jakarta benn entreprise benn benn société d'assurance nangoo ko assuré. ah yaa doog TFM daan ni le fait que ñuy dawal Jakarta ça veut dire que le dëkk dafa dox dëkk buy dawal Jakarta attention ah, attention euh, Ba sur tes propos gis nga parfois Jakarta man yi les livreurs la c'est de l'auto-emploi ah moi j'ai ici un livreur qui peut gagner soixante mille par jour attention bul stigmatiser je ne stigmatise personne dama ni la déglu ma wax dama ni la Sénégal ñaari employeur la am dañ leen war a defal ndànk kenn waxul auto emploi kenn waxul livraison dafa bon dans le dans sur le principe mais yow bi nga nee il gagne soixante mille par mois. par jour par jour. par jour am nga livreur buy gagné soixante mille par jour. Eh, xaaral rek xaaral j'ai un livreur ici. au lieu de prendre la voiture et d'être confronté aux embouteillages. je l'envoie à Diamniadio je lui paye trente mille. oui ma wax sans compter toutes les autres livraisons yi muy def fii il m'entend boo nee boo léew li nga wax c'est un cas qui n'est pas illustratif mu ngi mel ni nga ni xale yi dem leen ngeen jouer loto am na ku ci gagné un milliard li nga wax amul sens xam nga sama soixante mille par jour mooy ñaata trois fois six dix-huit mooy un million huit cent par mois ça veut dire plus que les ministres non il peut gagner ah il bon, peut gagner li ma la bëgg a wax foofu li ma la bëgg a ñëw man c'est sur des choses importantes moom am solo tey jii kenn mënu laa wax fan la ñuy jël <laughs> la dette que Macky Sall va laisser au pays amul benn secteur boo xamante ni mën na générer assez de revenus pour payer cette dette cette dette elle la laisse daf ko fee bàyyi bu ñu nee def na infrastructure kenn weddiwul defal infrastructure mais quand on s'endette su dee yow kër gi nga dëkk moomoo ko photo yi fa dekk banque bi fayagoo ko télé bi banque bi fayagoo ko frigo bi banque bi fayagoo ko nga ñëw ci kër gi ni maa ko moom kan mooy fay sa dette ana dette bi yëpp on est à onze mille milliards loolu c'est très grave nga ni ay populisme dugg na fii Ousmane Sonko c'est un populiste Macky Sall bi mu yéegee moo fi dugaloon visa pour les Français ñaata temps la def et pourquoi il l'a enlevé ça c'était le début ce populisme là ça nous combien de milliards l'affaire Big Togo combien de milliards la ko la ko la ko loolu coûté gis nga Ousmane Sonko encore une fois boo ko bëggee natt natt ko sur les principes xam nga benn Ousmane Sonko musul toog nii le Sénégal va se développer en fermant toutes ses frontières dafa xam nga yaa ngi dégg un problème ki va nous tomber comme ça là comme benn missile muy l'affaire China Mall lan moo tax nga structuré woo sa privé ba mu jël le secteur aussi important que la grande distribution nga bàyyi Carrefour dugg Auchan dugg nga bàyyi ñu ñu am un secteur privé investiroo ci ba China mool ñëw bu China mool ñëwee lan moo ciy dese qu'est-ce que ça va induire. China mool moom scandale la. mais parce que du du c'est le c'est le petit scandale. scandale la ah. qu'est-ce qu'on fait de l'informel. dégg nga ñu naan comment un pays comment un te pourtant boo demee Chine boo demee Chine mënoo fa ubbi mënoo fa ubbi grande distribution. Ah réciprocité xanaa am na. sénégalais bu bëggoon dem tey Chine ubbi fa lu mel ni China mool. dañ koy woo ba mu ñëw ni ko viens viens t'asseoir ah, ah ah c'est impossible tu vas aller t'associer avec des chinois ñu détenir une partie de ton capital ñun fii bu ñu ñëwee qu'est-ce qu'on va nous dire alors que 100 pour cent des produits de China Mall amul wax ma cahier de charge bu ñu ko bindal nii war ngaa jaay karootu euh, euh, euh, fële wala ñebbe ñebbe kaw la ku koy produire. dama ni la est-ce que am na cahier de charge bu ko imposer ah, mu jaay daalu ngaay est-ce que am na lu ko imposer mu jaay ay matériel boo xam ne se fabriqué au Sénégal donc moom non seulement moo ñu doon jaay se produit depuis la Chine maintenant suñu suñu propre opérateur yi daan jënd il va tuer ce marché parce que léegi moo koy indil boppam ana le ministre kii nekk ministre de la jeunesse de l'emploi et consommation il va lancer bientôt encore une fois pour ñoom pour régler un problème il faut créer des infrastructures la maison des des